bitim réew la ñu am mooy boulot métro dodo. nga gis jeeg bu fa nekk fanweeri at yàlla daanaka bu jëndee mbub mu bees day ñëw Sénégal. dina jënd or waaye bu ko takkee daa wàcc senegal ngir sagal boppam. lu mu am dakkas ko ci kër gi nekk fii est-ce que xam nga ne li yàlla bind moodu moodoo ci gën a gore. laaj ma lu tax. mooy tabax kër ba mu yegg te du ci mu fanaan lu bari mm. mooy jënd saako ceeb cinquante kilos ñu lekk ko ba mu jeex te du ci ñamuk pepp mm-hmm. mooy fay ndox mu mu utiliser wul mm-hmm. mooy fay courant bu mu taalul mm-hmm. nga dajale nag sa tuut sa nga yor nag fekk nijaayi porox ndox mu toog daa am ay nijaayi porox ndoox de dañuy ŋàppaaral ne Sonadis bu def ñaari paquet biscuit ak juróomi dërëmi tàngal bokk nag association ma lànk tekkee ma ñorul day am ci famille lekk waaw waaw liggéey déedéet yàq alali jàmbur kaay dañuy lastandeeru foo leen fekk dañ leen di yóbbaale dëgg la langaan seen métier nga nekk bitim réew di liggéey di leen yónnee. mën naa nekk sa taaw bi yaay yaawa da ko yemale ci nijaay mais mën naa nekk sa taaw bi yaay. dëgg la mën naa nekk sa yaay ji la jur. mën naa nekk koo yaakaar ci sa biiru mbokk. mbokk googu nag su boobaa li Modou duggee di wax day ñëw taxaw. ndax mbokk googu la la metti ñoo la ko teg. te xam nga lu gën a garaaw Sénégal. mooy sañoo ko mënoo ko bu ko def mm-hmm. boo ko sañee boo ko mënee bu ko def mm-hmm. moo ne dëgg la waaye rafetal ko mm-hmm. moo ne dëgg la waaye rafetal ko sa nijaay këpp sa kees ne fuuf la nga yoroon waaye xanaa ku saraxatul gumba war koo mën a bàyyeeg yelwaanam te nag xanaa silmaxa am na meneen métier wurul mudul nag wër usine buy na si puso nga dem bitim réew ak sedd be fa nekk liggéey dajale ba ñëw jox ko sa nijaay mbaa nga jox ko sa taaw bi yaay ne ko jëndal ma kër muy wër nag di photo kër jàmbur yi li gën a métti mooy day foto kër jàmbur yi yónnee rek ngay ngay <laughs> espérer kër bu ba nduur gee lay rom ne ko taay foto yónnee la ko naan la pourtant ma ngi fi di si gis nga poto bi ci kaw nii ma soobee gaawul rek waaye léegi bu pare <laughs> nga toog di dundee yaakaar naan sama kër ga sama kër ga te kër dafa neex alal dafa sax ci xolu borom mm-hmm. nga ne cëpp Sénégal di ko wër mu fay téléphone mm-hmm. ngay dem buntu këram doo ko gis mm-hmm. nga ne danga koy porter plainte sa yaay jóg taxaw ne la boo ko defee ma dogoog yow àddina ak àllaaxira boo ko defee tas famille bi mais moo Modou Gueye am na raison ci côté boobu mooy ban fami nga tas ban famille nga tas ci li nga wax aussi nga gis ci mbopp mag joo xamante ne wala rakk joo xam ne day nekk bitim réew di dundal waa kër gi di leen toppatoo moo yor kër gi moo yor lépp kër gi ba yàlla xëy nattu dal ko fa mu am fay problème ñu nangu ay kayitam wala ñu rapatrier ko wala mu ñëw ak feebar nekk ci biir kër gi ngeen wutal ko boolu mën a kan boolu mën a kan mooy supéri cere ak soo yooyu nga xam ne day am ñetti bën bën ak ñaari turu kubéer gi daanaka du ci jote ngelaw li di ci jàll xale bi la koy indi da koy puus nga ñëw ñu beral la néeg <laughs> néeg bi day dem ba am xetu sëcc ndax day sedd ñu naan ana mu ñu naan ma yow neex a dëkkal ku mbayaa ko tële mi ngi ci biir de moom da daa perte soog a ñibbisi mais mbokk yooyu mënatoo leen a bëgg mm-hmm. dinaa la